yee asalaamaaleykum mbokku Sénégal asalaamaaleykum mbokku internet yi gars yi maa ngi nuyu ku si nekk turam ak santam di leen ne dal leen jàmm ah sur ma chaîne YouTube comme ni ma koy faral di waxee chaque fois gars yi boo ma gisee ma def lii rek xam ne du ma wax jàmm non du ma wax jàmm bon ñëpp xam nañu ne Weshow moom xaw ma lan la ma nit di xasee xamoo dara ok amoo expérience ok del def recherche ok mais leen moo xam naa moom sama vidéo doo si ma a dégg saaga sama vidéo doo si mës dégg ma ñàkk teggin kenn sama vidéo doo si mës dégg. ah ma ne ma ma min ma minimiser nit ma minuer nit doo ko mës a dégg waaw parce que xëy na dafa am loo xam ne gars yi bari dañu foog ni eh, mooy maanaam éducation wala nit am yar dañuy foog ni dëgg dëgg dëgg dëgg si famille lay jóge d'accord d'une part si famille lay jóge mais aussi don la dafa mel ni mën a fubal mën a fubal don la de nit bu mënee fubal don la après nag nit ki moo koy travailler ak ñi nga am ñoom ñooy sa famille nit ki nag bu fekkee dafa nekk amul don yaru mu juddu rek réew parent yi dinañ def lu ne parent yi ndeysaan dinañ leen bu wax lu ne mais ñoom si moom ñoo tële waaw nit ki nag bu demee ba màgg ba toll yenn état yi nga bëgg a day jafe trop moo tax man jeunesse bi laay waxal jeunesse bi man ñoom laay waxal ñoom ñi nga xam ne xëy na lu mu tuut tuuti si ñoom nga mën a implanter benn genre patriotisme si ñoom nga mën a implanter benn genre éducation si ñoom nga mën a implanter benn genre xam-xam loo xam ni xëy na nit ki lu mu xam man je je dis pas que tout wala xam naa lépp mais bugguma nangu lépp lu xew rek ma ignorance yi moo tax lépp loo xam dama koy jéem a xam jëm si jéem a def recherche recherche ma def si sama recherche en loolu moo nekk sama ubbeeku ah di fàttali sénégalais nii yàlla rek ay yàlla rek a wóor yàlla rek kay buur waaw yàlla nag ñi mu yabal fii ñun gis nañ lan lañ fi def si sutura kenn du leen dégg kenn du leen a xamal te liggéey nañ fi lu mbindeef du liggéeyati si àdduna bii nii liggéey nañ fi lu lig mbindeef laa du liggéeyati bépp xalifa tarixa diine def na fi loo xam ni ah nit ñi ba mu koy def fekkewuñu te mu ngi fi sax ba léegi kon man gisuma ban mbindeef laa war a ragal fii si àdduna ba fa ñu bàyyi li nga xam ne baa nañ koo ba pare gannaaw yàlla je répète gannaaw yàlla ragaluma benn mbindeef kon amul ay menace ak man damat waay Fall ñun ay ñun ñii ay jinne lañ boo bëggee dégg dëgg waaw ay jinne lañ Sénégal jinne rek la fi yàgg nañ fi xanaa tey la phénomène bi tey la xew mais yàgg nañ fi yeew ay jinne yàgg nañ fi yeew ay dëmm te ñu ngi fi ba léegi waaw en tout cas man leen laa xam moom nit njaay laa nit njaay moo nekk di wax a yéen nit boo xam ni yàlla rek la gëm yàlla rek laa ragal keneen ku dul yàlla ragaluma la benn instant te di ngeen xam nag ëllëg si biir di ngeen gis lu xam ne xam di ngeen gis loolu lu leen nara a bett du affaire phénomène Cheikhou Sarifou xewoon na fi on rek yéen jël leen seen temps tey affaire yi si ay affaire élection rek lay commencé dugg nag si affaire préparation élection rek lañ fi indi ay yenn phénomène pour porter notre attention si yeneen bagage yéen dafa mel ni da ngeen fàtte yàlla yàlla nag ku ko fàtte mu fàtte la tàng bi Sénégal nekk nii. président yi ñoo ko def wala du ñu waxee rek ñu jox ñu jox ñu jox ñu koy xatee sax faute yi waa multinationaux yi du ñoom de sénégalais yi si boppam la at gëm li ñu warul gëm loolu moo tax ñuy toro nit ki moom yàlla moom boo ko fàttee mu fàtte la waaw yàlla boo ko fàttee mu fàtte la te yàlla buy weer nit si lu tuuti lay commencé te ndànk-ndànk rek moom ah ndànk-ndànk mooy jàpp golo si ñay tepp-tepp ba ne nder rek le problème mooy ce sera trop tard balaa ngeen di comprendre en tout pour répéter leen encore réglementé lépp loo xam dama koy wax sujet bu dugg si public bi moo ma si wax dama siy wax par force ba xam dama siy wax par force kenn rek laa ragalaa yàlla te kenn rek moo may tere def vidéo samay waajur sama papa ma nee bàyyil def vidéo yi ngay def ma bàyyi ko sama yaay ma nee bàyyi li ngay def vidéo moom tant que ñoom nag waxuñu ma dara mbindeef mënu ma bàyyiloo vidéo te bu fekkee gaa yi dañ jàpp ni bës laa jàppee seen xalaat bu gàtt la rek macha allah nit moom boo xamul lay argumenté wala nit ki moom boo amul benn genre ubbeeku xel bu ubbeeku doo mën a comprendre yu bëri kon tontu yu gàtt yooyu ngay def da ngay wut bës ah yow wéroo yow xam nga loolu noonu te nee naa leen Sénégal jigéen bokk si liy avancé lu dëkk mais bu fekkee xelu jigéen Sénégal yu bëri laa xëy waxuma ñëpp de yu bëri dañoo banku ba mënuñu sax argumenté ba pare bëgg laaj seen devoir si société bi day metti trop góor yi nag moom ay di vidéo góor naan kan ay demal nga diw say ay yooyu noonu man je suis désolé phénomène bi nga xam ne gars yi loolu lañ doon wax noonu mu ngi Sénégal de toot yaa ngi foofu noonu toot yi PD yi ñu ngi biir Sénégal nag ñu ngi fay commencé bëri bu baax a baax a baax a baax si phénomène yi rek axiru samaan la rek loolu yàlla waxoon na ko ba pare dañuy dañuy muñ ñu bañ a wane seen bopp rek parce que li xew si tubaab yi xewu Sénégal nit ki doo dox di cakar cakar si biir dëkk bi léegi ngay comme li nga gis tubaab di ko def fii Sénégal amoo fi tam def ko waa tëjul di xas nit ñi rek ku dugal vidéo nga xas. ku dugal vidéo nga toog di wax li nga xam moom moo lay jaa moom moo la jaaxal bon leen rek laa bëggoon wax gars yi pour ngeen prêter si attention mooy 2019 bii nii ngeen moytu bu baax 2019 bi dañ ne atum naataange la dañ ne 2019 atum changement la mais moytu leen bu baax gars yi parce que man ni ma gisee Sénégal jeunes yu bari yi nga xam ni war nañ dem jëli seen carte kenn jëliwu jeunes yi nga bëri nga xam ñu ngi topp naan Sonko Sonko Sonko Sonko man loolu rek moom la si nar xëy na candidat boo xam ni moom la. mais la problème mooy sénégalais si moom ñoo jug farlu def ko moom sénégalais yi fii Macky bu toogaatee du erreur kenn seen erreur la parce que yéen jugul dem voté man du ma nekk fi dugg si politique bu fekkee da ngeen bëgg a Macky génn na fi génn bu fekkee da ngeen bëgg a Macky Macky toog ngeen dem votel Macky mais bu fekkee bëggoo leen Macky toog fi moom ngeen jël seen carte ngeen dem jëli ko par force ngeen voté ko parce que carte yi ñëpp mën nañ ko amaa wax nañ leen lu fi mën di ne ay récépissé bu fekkee amoon nga amoon quarante mu réer demal ñu jox la récépissé nga dem vote ji mën nga dem vote ji waaw sans pour autant ngay xaar sa carte électeur boobu noonu di génn man nag affaire politique malheureusement xaw ma si lu bëri mais je sais des yoo xam ne am na si politique xaw ma nag biir politique lu fay xew mais xam naa ay tactique yoo xam ni gars yi dañ koy def ay coups ba ay lu ne dañ ko def pour jéem a déstabiliser adversaire yi mais dinañ def tout tamit tam pour jéem a porter attention ñi nga xam ne ñoom ñooy population bi si beneen bagage comme le problème de Pape Diouf ak Wally man gëmuma ko bu fekkee sax pap Diouf moo ko wax ay ay truc la yoo xam ne dañu bëgg yóbbu Sénégal foofu noonu si réseaux sociaux ñu concentrer wu si yi ñoom ñu def li nga xam moom la ñuy def si ginnaaw déjà un parce que tamit loolu je crois que ni leer na ma ni comme ministère de l' intérieur mooy jot audio yëpp wala genre yooyu noonu si biir ministère intérieur gars yi ñooy balancer affaire yi si YouTube bi di ko jox ay faux type ñu koy dugal première chose deuxième chose combat Balla Gaye Modou Lo mooy combat bi ba léegi combat bi nga xam ne man je peux dire que c'est truqué dañ ko truqué pour seulement yóbbu nit ñi foofu noonu combat bi moo gën a nëpp parce que bu fekkoon combat bu baax la war na yàlla instant yi nii Eumeu Sène ah dina mën a bëreeg Balla Gaye wala Modou Lo du di bëreeg Eumeu Sène pour jël roi des arènes ce sont des choses truquées gars yi dañ ko nekk di lañ nekk xaalis si kan kaw la la Lac de Guiers Modou Lo ah Eumeu at ki nga xam ni moo di Balla gay 2 groupe bi loolu la ay ñoom tafaatin yëpp dañ leen si yokk rek pour neexal ay Ama Balde yi yëpp si suuf rek la ñuy nekk tant que ñuy jógee ñoo fi ñoom si suuf la ñu nekk bu seen heure jotee nag ñu yéeg nee la sport Sénégal lépp lu muy def dara dara jubu si te xam la moom a gën a métti mooy mennum store boo xam ne nee na sport national la amul benn xaalis amul benn revenu bu muy jox biir sénégalais amul benn liggéey boo xam ne créé na ko pour sénégalais amul sport fii école de sax nit ñi ne leen fay ki nga xam ne mooy dem jël kii ni nga ko waxee sax. Euh, bale yi di ko ramasser kooku dañ koy fay fii si école de football yi mais sport bi nga xam ne mooy sport numéro en Sénégal amul benn revenu bi muy jox Sénégal mooy sport bi gën a nul mooy sport bi nga xam ne nit ñi moom lañ gën a seetaan en tant que élection ñu ne la élection mu ngi ñëw dans un mois ñu mobiliser des personnes ñuy topp làmb jooju noonu pour ñu ñuy mën a def seen bagage suuf ngeen bàyyi ay phénomènes yu garaaw bu ñu paree si loolu ñu commencé ne woon ay affaire yoo xam tamit da leen di yóbbu foofu noonu affaire de guinches benn si violence yooyu la bokk padois booy yi ñu taal si violence yooyu la bokk loolu yëpp pour sànni leen seen xel te xoolal bu ñu xamee ni fii mënuñu leen am dinañ commencé dugg si fitna moo tax ma ne leen lépp loo def rek ngeen utiliser seen tête ngeen ànd ak diplomatie. parce que nit ki moom bu xamee ni yow nii nga mel te jour bi ngeen xam ni ngeen dem naan violence ngeen di yóbbu ñoom ñu leen fay xaar parce que ñoom loolu la ñuy xaar man su ma amee sama adversaire ma xam stratégie de stratégie de jeu wax dëgg fa yàlla moom foofu laa koy xaar te ñoom nag wax dëgg fa yàlla foofu lañ leen di xaar sénégalais utilisez vos têtes ngeen bàyyi wax yu débile yi ngeen di wax perte votre temps sur des vidéos yoo xam ne amul benn sens ay youtubeurs yoo xam ni wax dëgg fa yàlla sensibiliser wuñu waxi dof rek la ñuy wax mais ñoom ngeen di gën a seetaan en tout cas man wax dëgg fa yàlla moom iñaane moo benn youtubeur mais leen laa la mën a wax youtubeur bu du sensibiliser jeunes yi youtubeur boo xam ni waxi dof rek lay wax youtubeur boo xam ni respecté wul sax public bi nga xam moom la seetaan parce que man je me boo toogee nga ne da ngay def vidéo pour wax nit ñi na nga def vidéo au moins au moins vidéo boo xam ni dinañ vidéo boo xam ni nit ñi dinañ la apprécier mais ku nekk day jure toog wax sans préparation y a beaucoup de personnes ñu teg seen bopp youtubeur mais du ñu ay youtubeur parce que youtubeur gars yi bëri xamuñu lan mooy youtubeur gars yi bëri bu ñu joxoon gëdd youtube youtube Sénégal dina toll foo xam ni benn youtube du ko toll si biir Afrique parce que Sénégal yàlla da leen may wax lenn rek la leen yàlla mayul ñu bëri mooy recherche yéen rek la leen yàlla mayul mooy créativité nee naa leen rek laa gëm ni bu ñu nee Sénégal la ko moom ma ne waaw moo di ceebu jën at mbalax leen lu si des yëpp ay toppandoo lañ ay dix ans de challenge dix ans de challenge yéen xamoo leen sax lu muy signifie <laughs> xamoo leen ko sax mais ñëpp a ngi koy def. tubaab yi instant yi contrôle bi ñu am si ñun surtout les américains ñu ngi koy wone chaque fois fecc bu fi dugg gaa yi koy njëkk a fecc musique bu fi ñëw gaa yi koy njëkk a wëy télécharger son yi ñun dañuy basé wu si américain pour wax diw mën na woy wala diw mënul woy ñun dañuy basé wu si américain pour wax suñu rappeurs mën nañu rap wala mënuñu rap te pourtant suñu rappeurs li ñuy def ak li américain yi def c'est pas la même chose mais ñun si américain xam ndax kii mën na rap wala mënul rap. pour vous rek tubaab lu mu ñu dominer tubaab daf ñu raw 500 ans tubaab daf ñu raw 500 ans tubaab bi muy jug boobu ñun ñuy nelaw mënuñu tëb tëb tëb tëb tëb tëb rek ne dañuy tolloog tubaab yi mënul ne xam nga tamit wax dëgg dafa metti trop. waxoon naa fi nag gars yi si moodu moodu yi dañuy maras dañuy martaat tubaab yi gars yi di mer fii gars yi da ngay martaat tubaab bi dama dul xaawi sutura rek bu ma doon xaawi sutura dama leen woon ay vidéo cachées yoo xam ne damay dama lay gis loo xam ne billaa walaa damay rus. damay ruus carrément waaw damay ruus seulement que ni mooy loolu xaawi sutura jàmbur moo naay sul man du ma kuy xaawi sutura mais dinaa leen wax li am dëgg boobu mu am fii sénégalais yu bëri dañuy maral tatu tubaab yi ki ngay yaakaar ni moom moo la mën a défendre fii si dëkk muy sénégalais ñu koy invité ay télé sax kooku dafa ragal tubaab yi affaire de wanewu la rek ñëpp mel ñu ñu Kemi Seba de kooku mooy vrai activiste kooku mooy vrai activiste. sénégalais fii ragal nañ lu bëri man maa leen ko wax ay affaire de ginces ak yooyu noonu man nag du ma dugg si vie privée jàmbur comme ni ma koy waxee chaque fois du ma dugg si vie privée jàmbur te du si wax gars yi dem leen ngeen voté ku si nekk yaw ak yàlla la ah at li nga xam ne moom mooy këyit yi ñu la jox pour nga dugal choisir ki ngay voté mu dugg wax bi jeex parce que vote bi à la fin la quoi benn poste la boo xam ne yow rek yaa xam kan ngay voté nit ñi mën nañ la ñaax jox la ay preuve mais yow sa bopp yaa war a analyser wax kan toujours ça. mais pour ngeen bëgg nag ni ngi génn il faut yéen tam ngeen changer pour ngeen bëgg Sénégal changer je répète il faut ngeen changer il faut ngeen nekk nit yoo xam ne peut-être dañuy dañuy romb step dañuy avancer te jigéen yi nee naa leen tant que seen xel mu ngi banku dëkk bi du dem parce que jigéen bu mënul argumenter munoo tolloog société bi parce que tubaab day échanger tubaab mi ngeen bañ ñu leen di tëkkale ñoom loolu la ñuy def dañuy échanger dañuy trouver ah, des idées génnee ay wax. bu ñuy joxe benn critique même bu fekkee day négatif dañ koy wax si li nga xam ni dina la mën a base bi base bi base bi mais nit ki nan lay defee benn bagage wala wóoyam wala genre wala nit ki génn def benn rek nga ne ko ah kon yow wéroo yow fenn rek jigéen bi gën a jigéen Sénégal yépp ay saagale jigéen bu amul langage saaga rek lay def jigéen bi nga xam ne si waxam day teey si waxam si doxinam day teey si sëyam day teey jigéen yooyu noonu ñoo gën a rëbb mais yooyu yëpp du ñeenti topp la rek. fàtte yàlla ak ñi ngeen di topp moo tax affaire yooyu am gars yi vidéo bi jeex na lu la amoon pour waxtaan yéen man moom damay ñaax rek lu ñëw sama bopp rek ma wax waaw su ma defee nii rek xamal ni dafa am lu ma metti affaire gën cës bi nag gars yi war nañ si jug bu baax ñu leeral lii lan la yomb na trop ñu leeral lii lan la te ngeen bàyyi dugg si futilité yi ñàkk fayda yi internet bi ngir yàlla boo leen di dugg ah ngeen ne da ngeen jënd paas gars yi neen dañoo paas bu leen dugg xool leen li nga xam da leen di jëmale kanam ngeen dugg ci ngeen déglu bu baax man bu fekkee sax li may wax wu leen bu leen déglu sama vidéo bu leen xool sama vidéo pour ba ñaax paas mais boo leen xool sama vidéo tamit bëgg naa ngeen dem toog xool def ay recherche dugg si Google bi xool li nga xam ne loolu mooy arrangé dugg si Google xool nooy defee sa projet dugg si Google bi xool nan nga a def pour yegg fii nii man je crois que loolu moo ëpp importance toog di déglu yenn youtubeurs yi wala yenn site rajo média yi wala yenn bagage yoo xam ni waxuñu leen lu dul yëfu naafeq gars yi vidéo bi jeex na ah loolu was la woon nag maa ngi jégalu bu baax bu fekkee wax naa lu ma war a wax waaw man moom nit laa rek ne ma la waxee yàlla rek mooy buur yàlla rek mooy kenn ki nga xam ni moo mën a def nit leen waaw du ma wax nag loo xam ni juum naa nag loolu moom sama dof la quoi comme sama jinnee ma dugg <laughs> jinnee ma dugg quoi waxut dof moom jinnee ma dugg waaw mais bu fekkee wax naa loo xam ne am na sens moom sant yàlla ndax yàlla moo ma si dugal yàlla moom moom moo ma jàppale ba nga xam ne am naa gémmante dama koy utiliser sama làmmiñ nag moom maa ko bu may wax du sénégalais yi abonné ñoo ma koy wax ku bëggul nga désabonné loolu maa ko tey bu ma yeggoon deux abonné ngir yàlla yeggale leen ba deux abonné ngeen xool ndax du ma continuer def samay dama koy continuer parce que li may Sénégal sama baat laa yor dama koy wax yàlla dafa ma amay kàddu pour ma wax ku mën a wax mu wax ku mënul wax mu commenter ku mënul commenter mu bàyyi mais man moom kenn du ma teree wax sama liggéey nag ak bañ a dem wuti liggéey yoonu kenn nekku si parce que sama vie privée la parce que bugguma sa vie privée yow te Sénégal na ki gën a yaafuus ki gën a toog si bunt boobu noonu ah di naan alaaya wala ki gën a xam ni xamul sax fu muy taxaw moo daa ko wax ni ki dama liggéey te moom du mës sa jug dem liggéey ñàkk jomam boobu noonu xool sa moom góor yàlla nga ne ko dama liggéey te yow liggéeyoo ñàkkub jonu sénégalais la rek la loolu rek sénégalais rek kay def mais muy cool loolu wees la woon ak yéen ah